mbokk yi ñëw nañu tey niñ ko daan defee at bu ne ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw naa ànd ak soxna Mareem fii ci Fatick fii ci Fatick nañ ko daan defee ci centre Thierno Mamadou Sall bi nga xam ne fii lañuy ñuy woote may sant nag waa Fatick balaa may gën a sore ndax nag Fatick euh, Fatick fii la lépp tàmbale te fii la lépp di mujjee kon ñëw nañu ni ñu ko daan defee woote senegal nag yàgg na di woote te ren ji donte campagne bi gàtt na gis nañ ne yàlla def na sutura ba lépp na ci yoon tey jii woote jot na donc sénégalais yëpp jóg nañu depuis ce matin pour woote nañ ko daan defee ndax Sénégal réewu démocratie la. bu ñu wootee ba pare nag li ciy topp xam nañ ko mooy bu 18 heures jotee ñu génnee résultat yi affiché ko bureau de vote bu ne presse bi ci boppam xam ngeen ni moo xam télévision rajo réseaux sociaux ku si ne. mën na génne résultat yi ñu taf ci bureau de vote yi waaye taxul nag ku ne war a jóg na maa def lii wala maa def laa bu paree tey ci guddi à parti de minuit tribunal mooy jël relais bi représentant candidat mu ne dana fa toog Sénat toog fa te Sénat bureau bu ne am na fa représentant te it boo leen di xool observateurs yi ni ñu bare daanaka ñoo ëpp bureau de vote yi. donc jóge nag fu nekk ci àdduna bi jóge ci biir Sénégal jóge ci CEDEAO kon loolu yëpp day wane processus électoral bu transparent nañu ñaan yàlla rek mu defal ñu li gën ah sénégalais yi tànn ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moom la ñu wóolu pour mu jiite réew mi ci juróomi at yi di ñëw kon nag encore une fois jërë ngeen jëf yéen waa Fatick jëf waa Sénégal jërëjëf waa Sénégal hmm? ah ci résultat yi ak ci élection bi macha allah jërëjëf.